سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen jottali nuyu xalifa bi xalifa bi wax dëgg yàlla may nañu ndigalu bu ñu nekkee ci barab bu mu nekkul ñu mën ko faa wuutu wax ci kàddoom waaye teraanga googu yëpp itim taxutoon ma am yéenaay ne su ma ñëwee ci turam laay wax dama ne woon su ma ñëwee damay wax ci suma turi bopp ndax soxna si invité na ma yónnee ma carte bi ma yéex koo gis ci liggéey bu ma sëriñ bi santoon ba 3 heures du matin laa romb ci suma whatsapp gis invitation bi ma fas yéene ne dinaa ko uyu guddi na ci waxtu woo xam ne kenn du ci woo borom kër ca suba sa ci lañ koo mu wax ma xew-xew bi ma ne dinaa ñëw maa ngi école boobu ci bureau école bu mu xam école Seyda Roqeya nekk na benn jamono ci difficulté gis nañ ci assistance yam ca def ma jógee école ba ñibbi Medina tey daane ma xew-xew bii nga gis nii léegi lañ ma indil carte bi mbaa danga ci dem boo demee teewal ma te fekk na man joxe naa suma accord de principe ne danaa fa teew ma ne ko baax na dinaa dem te dinaa la teewal kon ma teew ci ñaari tànk yooyu ak ñetteel bi nga xam ne sëriñ bi may na ndigal ma di ko wuutu ci barab bu mu nekkul waaye teewul buggumaa ñëw rek naan sëriñ bi mu ne te fekk sax gisuma sëriñ bi dama insisté ci sëriñ bi dafay yëg ne dinaa ñëw ndax mun naa wax ci turam bu boobaa soxna si ne ma soo ñëwee nga wax ci turam ma ne ko waaye bugg naa itim dégg kàddu sëriñ bi yàlla def nelaw këf ma gannaaw bu ñu sonnee ci liggéey bu ñu daan def bi ma yeewoo am xale bu ma oo fii la nekk ci université ne ma xalifa bi de mu ngi lay oo rek mënu laa jot ma ne mu góog nag xalifa maa soxla ñu naan mënul maa jot bi may coupé xale bu jigéen boobu rek xaw ma turam ba léegi daf maa oo rek wax ma loolu nee na ñu ngi ci université bi lii Adja Moussokoro nee na xalifa bi nee na mu ngi lay woo bi ma coupé moom xalifa bi ci boppam moom ne ma demal ci barab ba nga teewal ma fa kon mi ngi ma fekk Dakar ngir ma ñëw ci liggéeyu xalifa bi ngir ma fekk na itam amoon naa yéen ay teew ngir sabab yi ma leen tudd waaye xalifa bi ci boppam moo ma woo ne ma demal nga teewal ma fa ndax euh, soxna la koo xam ne xam nañ ko ci xadra bi lu liggéey bi xadra bi am ci liggéey hmm. lu mu laaj sacrifice joxe doole joxe alalam joxe man-manam joxe wér-gu-yaramam dana ko def ku mel noonu nag bu xewlee itam ñun bu ñu woyofoon ñooy ñëw waaye demal nga teewal ma fa te yaakaar naa ne ñi fi teew ñëpp xalifa bi lañ teewal mhm. sang Barham Njaay mi mhm. xalifa bi la teewal mhm. ndax chaise ba nga xam ne Cheikh al Islam moo fa doon toog tey moo fa toog ñu koy ooyee turwa mu rangoo meloye di xaadimul umma dañu nekk Arabie Saoudite ci benn jotaay ak kilifa gu mag bi may wax ci sëriñ bi ba ne fadilatu cheikh mu ne ma ngir yàlla dee leen ko waaye cheikh al islam kon mu ngi toog ca chaise cheikh al islam ba ñu ngi koy wooyee wa moo ñu délégué ne nañ ko wuutu ndax liggéey bi soxna si def dafa ñor yonent bi lool daj na ci lu nekk ndax contexte bi yonent bi ñëw li mu fekkoon mooy doom bu jigéen ku ko am dafa mel ni gaaf moo la takk benn waaye dafa ñëw ñu bari sax ci saxaaba yi dal na Omar ibnul Xattaab waaye dal na ku ñuy wax Abdullah ibnu Mughaffal yonent bi daf ko xool gis mi ngi triste mu ne ko loo xewle lu la dal maa lii araaka xazinan dama laa gis nga triste lool yonent bi kilifa la goo xam ne day xool ay njabootam di seet ku ci nekk ci jaaxle mu assisté la di seet ku ci réer mu gindi la di xam ku ci nekk problème bi nga nekk mu réglé la problème boobu bi mu ne ko dama laa gis nga mel ni yaa ngi ci ay jafe-jafe mu ne ko dafa am lu ma fàttaliku xista bu gudd la dama koy gàttal dafa am sama benn doomu jigéen boo xam ne dama ko ma a wax ne ko kaay gunge mañ nga seeti say nijaay ñu ànd ba génn dëkk bi ndax boobu am doom bu jigéen gàcce la ma dem ba génn mbooloo ma rek ma commencé di gas su may gas pënd bi di daal ci suma kaw xale bu jigéen bi di ma puusal pënd bi jël mouchoir am di ma fomp ndax yërëm ma may gas ba mu xóot ma xool ko su ma ko buggee daane ci teen bi yërëm naa ko waaye itam su ma ko naree bàyyi ci biir société bi gàcce topp ma mu ne ma nekk ci loolu entre yërëm ko ak entre gàcce gi ma am ci am doom bu jigéen bàyyi mu ne yéefar moo gàtt xel yaa ngi am doom bu jigéen bëgg koo rey te bëgg nga jabar bu ñëpp reyee seen doom yi jigéen yi fooy jëlee jabar Cheikh Ibrahima moom loolu loolu la ci tontu mu ne bi mu nekkee ci diggante bi ba ci kanam mu dóor xale bu jigéen bi mu daanu ci biir teen bi ma koy suul muy yuuxu ba déggatuma kàddoom ma bi ma delloo yëgaluma ko suma yaram ndax mu ngi ci jaahiliya gannaaw bu mu tuubee nag xol bi nooy heure bu ko fàttalee rek fàttalikoo rek mu ne rakiba nii hammun azim suma bopp bi fees dell ak problème yonent bi keroog dafa jooy ba mënul téye boppam dafa jooy ba jooyloo mbooloo bi ne ko law umirtu an uaqiba ala amalin fuila fi ljahiliya la aqabtukum aw kama qaal su fekkoon ne digal nañ ma lu def nit bàkkaar bu nit defoon ci njëkk muy dugg ci lislaam ma sañ ko cee mbugal kon tey ma teg ay daan say kaw waaye xam ngeen ne al islam yee jubbu maa qablahu wa tawbatu te jubbu maa xam qablaha boo xasee tuub rek da ngay daal di set wecc waaye mu ne ko su fekkoon ne am naa droit rétrograde loi yi damay delluwaat rëq sa ndigg ñu door a baale baale mooy yonent bi loolu la daj ci société bi pour jigéen ñi am place tax na ba nag jigéen ñi bàyyi mu ne mën nañu am place bu nekk boo xam ne yàlla nga koy maye. waaye xam ngeen ne jamono bi ñu toll am na ma maqaama yoo xam ne moom tëju na ku ne xam na ne nubuwatu moom. baay mu ne fatat na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon waxuñ jigéen di utik nu boobu waaye góor ñi sax uti utiwuñ ko parce que xam nañ ne boobu moom tëju na am na maqaamaat yoo xam ne xat miya kët miya am na borom Cheikh Tidiane la tudd alfaydatul kubra am na borom Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Ñas la tudd waaye bépp mbaax bu mooy yooyu rek góor ñi di ko uti jigéen ñi man nañ ko ut loolu mooy li nga xam ne révolution bu mag bi nga xam ne Cheikh al Islam def na ko ci daaw dafa nekk ca Médina nekk ak ay doomam nekk ak ay taalibeem di leen jàngal ci biir njàng bi mu ne jigéen ñi góor ñi nag mënuñoo doon lu rek seen i càmmi wal bintu kal ibni fa kuni mahrama dàqante leen ak ñoom ndax ba yàlla waxee ne fa firu ilallahi ne leen bëppét jëm ca yàlla mu tasawifu ni cheikh al islam ci boppam ni mu ko firee mu ne daw jëm ca yàlla mooy daw jëm ci aji mat ji jamono léegi nag bi ñu dawee ñun ñëm ne bëppit ci yonent bi lañ doon jëm léegi ci martabati ihsaan ñi nga jëmali borom jamono Mawlaay Cheikh al Islam Haji Ibrahima Niass ku ci nekk nag ak kala ca jotali ku mënta def bëppët jëm ca moom itim am nga ngeen ay wax wasaait ak ay wasail yoo xam ne nit mën na jaare ci ñoom te ku jaaree ci ñoom yaa ngi ci Mawlaay Cheikh al Islam Haji Ibrahima ci ñooñu nag amul góor amul jigéen yitte rek la laaj yitte rek la laaj ndax euh, euh, sang barham njaay bii dégg ngeen mu fi wax léegi fàttali na woy woo xam ne Mawlaay laay al Islam moo ko woyoon ci benn shérif borom xam-xam cheikhaani mën na abba laaj ko ba laaj ko li ñuy wax al maqasid daanaka rëy na ba kenn ñemewut toog ci mbooloo sax di ko feriñ fànce ndax jigéen mën na ko am bàyyi def ne ko man xàmmewuma góor ak jigéen waaja laa xam waaja nag nii lay mel amal maqaasidu fa xasdul aarifi wa ma kullu majzubin bi zaakal aarifi ba nga xam ne wooy wa daanu na comme ni ko sang Barham Jaay jàngee ni walaay cheikh al islam ne jigéen ñi zaaxim na ila naylil ula amma bi abdaanin fala rëj rëj loo leen ak góor ñi waaye waxuma rëj rëj loo yaram rek ila darkil maali la la wax ñuy xaccoog ñoom ci àgg ci mboolem teraanga boo xam ne rek yàlla nga koy maye ba mu des yii nga xam ne su neexoon yàlla mu may ko ñu bari waaye neexu ko ni mm-hmm. ko soob mooy mu tënk ko ci ñu ko tënk ñoo ko moom leen abad yàlla mën na lu nekk sañ na lu nekk waaye noonu la ko bëggee itam noonu la ko bëggee itam soxna si toog nag model la ci lool moo Cheikh al Islam doon oote modèle la ci ne lu góor am <laughs> jigéen bu defee yitte mën na cee jot moo tax boobu xewlee xalifa bi bëgg a teew su teewul bëgg na itam ñu teewal ko loolu mooy suñu jotaay fii Baye Mawlaay Cheikh al Islam dafa buggoon modèle bu mel nii am moo tax daf nan def li tubaab yi di wax ci jàngale discrimination positive loolu mooy lan mooy ne sooy nekkee ci benn societé ñu rawante nga bëgg société bi nga xam ne dañ koo raw mu dabe doo tëb rek ne ko jugal dem ànd ak ñoom dafay fekk course bi am na ñu ko jiitoon déjà da koy jox ay faveur yoo xam ne dafay mel ni sax joxoo ko ñi ci des moo tax ba ci biir discrimination positive boobu mu may jigéen ñi loo xam ne néew na lu mu koy may jigéen gis naa benn jigéen boo xam ne bëgg ma tudd turam ndax jege gi ma jege mu mel ni dama koy defal propagande dafa gis benn ahzabul ñu def ci mbóot yi nga xam ne mbóotu Cheikh Tidiane yi la ak ay wirdo mu ñëw indil ko bàyyi ne ko dama bëggoon de nga may ma ubbi ci benn zikar benn wirdo ne ko dama bëggoon nga may ma ndigal ci wirdo wi ma koy def bàyyi ne ko ma xool mu jox ko ahzabul awraat bi mu ne ko utal ma bindukaay mu utal ko bindu bindukaay mu bindal ko ci ijaaza itlaq xam nga ijaaza itlaq yombewul fenn rawatina bu bàyyi te kii benn mbóot rek la ko doon laaj soxna soosu mu bindal ko lijaasa li taax ci tiire ahsaabul awraat loolu mooy discrimination positive ñii comme damaa bëgg ñu dabee da leen di dawal danga leen di jox waruwaay boo xam ne waruwaay bu gaaw la te loolu facilité na ko jigéen ñi yàlla ñu ko yàlla fayal kii nag modèle la ci moo tax soxna si nga xam ne bind na ci moom lu baax la modèle yi dañoo war di pérenniser seen dund yi jaar-jaar biñ jaar ba am li ñu am dañ ko war di bind te bind yombut xam naa ne dañ nga dañ nga ci lu lu métti da ci def sa wér-gu-yaram da ci def sa xam-xam da ci def sa àll moo tax li Barham Sang jaay mi def ñu koy ñi ñaan yàlla ñu ko yàlla fayal mooy xiir ni ñu ci pour ñu jëndi téere bi man de bi ma yegsee avant muy def déclaration bi laa ne jaay leen bi ma jaayee ma ne ko bind ci turi xalifa bi parce que moom laa représenté su ma àggee hadiya laa ko koy jox ne téere bi moo waraloon jotaay ba foofu bind na ci moom bëgg naa itam mm. soxna si moom itam mu bind ci su ma demee moo yóbbul ko xalifa bi waaye biñ ne dee ñu joxe hadiya euh, laaj leen ci ma ne leen laaju ma damay jënd xam naa li ci taalif ndax am na lu ma ci daj métti mm-hmm. euh, na danga nga ci def alal ci déplacement yi mm-hmm. da nga ci def sa doole danga nga ci def sa xam-xam daanaka am na téere yoo xam ne boo ci paree da nga faju yàgg. waaw da nga ci def sa temps. ndax métti gu mu métti. waaye yàlla na yàlla fay. amiin amiin Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop dañ ma mës jéem ba am lu ma bind. bi ma bindee wan ko ko mu ne ma boo liggéeyalee bàyyi ci xidma ci wàllu bind. dana la mas a fay fay boo xam ne nit ñi dañ ci teg bët xaw ma luy loolu ak lu tax mu wax loolu ak fu mu ko jëlee itam laajuma ko ko waaye moom marja la lu mu wax am na ci sula moo ne ma ku bind ci xadra bi ku liggéeyal xadra bi ci sa xaliba danañ la fay fay goo xam ne ku la gis dana gis fay goo ci yow kon ñu ngi lay bëggalee loolu mais oustaz da ko wax oustaz lu mu wax rek am na ci cëslaay bu bu dëgër ngi sant yàlla beneen yoon di wax soxna musu yi ne liggéey bi ngay def ci xadra bi gis nañ loolu nag la bàyyi bëggoon itim ñu dem ba nga xam ne fu ñu gis góor bu am taxawaay gis jigéen ju am taxawaay ci wetam bés dafa am lu mu bind ne man shagalahu ما كان موجودا عما لم يجد ولا من شغله ما كان موجودا عما لم يكن فهو رجل وإن كانت امرأة mu ne képp koo xam ne jëm yàlla ji nga gis te lu yàlla neen la wala neen sax amul yàlla fees sa fees la dell mu ne kooku maa ngi koy considéré ne góor la même bu ñu koy ooyee jigéen soxna si góor la même bu koy ooyee jigéen ndax ci jigéen góor ci taxawaay rek la doon ku am yitte la ku am taxawaay ci xadra bi la waaye itam ñu ngi oo mboolem góor yi ne ñu nekk ci seen wet di leen dimbale ndax bintu kër ibni fakuni mahrama la mawlaaya cheikh al islam waxoon mu ne ci wàllu xam-xam ci wàllu ut mbaax ci wàllu ut maali barab yu kawe yi wàllu dàqante boobu doom bu jigéen bi ak doom bu góor bi laa yebal kii dafa doon càmmiñ rek kële doon jigéen donc ànd bi ñu ànd jëm ci yàlla noonu la war a tëddee bu jigéen di seet delloo gannaaw rek bu mu ci tudd lislaam bu mu ci ut tudd cheikh al islam Haji Ibrahima Niass mi nga xam ne moo ñu jàngal ñun lislaam moo tax maa ngi ndokkeel itam xale yi nga xam ne ñoo def sketch bi jàngale nañ jàngale mu rëy ci seen digg bu néew bi nga xam ne rek taxaw nañ ko ci kanam mbooloo bi yàlla nañ doon ay mag ñoo xam ne dañuy jëriñoo seen xam yooyu jotaay bi du sant yàlla la ñi ngi gërëm mboole mbokk yoo xam ne teew nañ fi sëriñ bi mu ne mi ngi ñaanal ñëpp bés bii comme moo ko waroon a teewee taalibe bu fi teew soppe bu fi teew rek jàppal ne yow yaay représentant xalifa bi te moom it noonu la ko noonu la ko jàppee dafa jox ñëpp kàddu ci jotaay yu nu mel xam nañ ne am nañu noppi ñoo xam ne bu ñu waxoon sax seen wax gën a ñi nga xam ne ñoo waxoon ndax yëg-yëg bi benn la nit ku baax lañ fekkale si bés bi nit ku màgg ci xadra bi lañ fekkale si bés bi nit koo xam ne dundam yëpp jox na ko xadra bi fii mu toll nii waru fi woon a nekk mi ngi waroon a génn ndax damay wax ak waxtaan ak moom xam naa lu bëri ci moom mm-hmm. xam naa ne mi ngi ko waroon a fekk mu nekk nekk bitim réew di faju waaye jotaay bi moo tax mu dekkaale yooyu yëpp pour rek jotaay bi am pour soppe yi tasee ñi jàng fi benn laay wala ñu jàng fi benn xadis rek jaroon na dem ba Kilikoro moom mu woote rek jar na dem fu sori yàlla xam ne ne ñi fi teew du am jot moo leen fi teewloo man de sëriñ bi moo ma yebal ma ñëw am lu ma fi dox mu ne ma bu subaa na nga ñëw yaag diw ak diw ngeen reeree si ci man ma am lu ma leen wax su loolu paree na nga delluwaat Dakar ci altine bi te loolu ñuy wax noonu incha allah danañ ko mës a ci kaw nañu raxas bool yi ba mu set ndax sëñ bi am na lu mu bëgg a yàkkale loo xam ne ñun ñëpp ñoo ci bokk ànd liggéey mu am dimension internationale boo xam ne li bàyyi liggéey daal gis ngeen lam def Soudan incha allah lu ko gën a rëy mi ngi ñëw ci àddina bi moo tax mu ne nañ ko waajal loolu la nekk di ko waajal bugguma ko tudd ndax moom mooy ki nga xam ne moo ko war a waaye incha allah nañu préparé wu xam ne sas waa ngi ñëw sas wi nag moom mooy nekk ca kanam bu ko defee nag Mawlaaya Cheikh Mahi mënul nekk dara ca kanam kenn di woote taalibe Baay di des gannaaw ñu ngi koy waajal incha allah danañ ci wax ak kilifa yi dañuy dem ba ñoom fekki leen wax leen détails yi ca biir incha allah danañ ko biral itam ci kaw waaye am na ci tafaasul yoo xam ne kilifa yi lañ ciy waxat kenn ku ci nekk wax ak sa njaboot ah incha allah ñu ànd dem góor ak jigéen Adja ñu ngi la cay xaar ñu ngi ciy xaar jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci sa gannaaw ndax fu góor yi xadara bi ma sa nekk rek sa loxo ma nga fa noonu la ko yónnent bi bëggee woon noonu la yaree jigéenam ñi nga xam ne ña nga woon ca wetam ñoom soxna Aïcha bi yónnent bi gaañoo ñoom soxna Afsatu dañ daan jàngal góor ñi ni dafay bëgg dara xam ne lii nii daal mënu ma ci xam dara ndax ci biir néegu sëy la war a xewee xewee te laaju ma koon yónnent bi kon ki nekkoon nag moom ci biir néegi sëy balaa laa koy laaj moo tax jigéen ñi dañ daan jàngale foofu gannaaw bu yónnent bi fàddoo sax ci jëmm ruuxaaniyaat ba léegi bi buñ ne faatu na àddina tukki ndax mënuñ di dox ak suñu séeru mënuñ di ko gis ba suñu jëmu yàlla yi ba pare di ko déclaré utal ko attestation ni jógee na fi mënuñu def loolu ci beneen dimension la ñuy waxee ci boobu mu nekk fi di yar ba léegi yar na jigéen joo xam ne Seyda Nafisa Seyda Nafisa xam ngeen turoo daanaka kër kilifa gu baax koo dem da ko fa fekk ku ñuy ooyee Nafisa Nafisa bu séeru yi daf ko xool ba ci kanam mu ne ko warista مصطفى وعلومه وفضلكما لولا النبوة واحد doon ko sa maam ba mat sëkk bu ma doon comparé seen ngëneel damay wax ne su taxutoon ak yónnentu gi ma ne yaag sa maam kiif kiif te ku nekk xam ne ne bu seyri yu du cuni waaye bu seyri yu dëgg la léeg-léeg Cheikh Ibrahim gàgganti ko waaye Cheikh Ibrahim gàgganti la teew laa doon mbër kaamil ndax Euh, li ngeen li nga fa taar yi léegi aw jëde nii xaqan li jëbril kasri moo tax ba dana gàgganti mbër te du wàññi ci xiimam dara bu séeréer di cuune xool na ndaw si ne ko bu taxutoo nag yónnentu gi nga xam ne tëj nañ ko yónnentu dootu ñëw man ne yaag sa maam kiif kiif donc jigéen dem na ba nga xam ne am na wiraasa muhammadiya waxuma xilaafa maa ngi wax wiraasa muhammadiya jigéen dem na ba yegg foofu loolu mooy nekkoon jiitee jiite mën naa yóbbu euh, jigéen fu nekk ñu góorgóorlu rek moo ñuy yeggale fi ñu déggee wax naa ne bàyyi corriger bu sayru yi du ko wàññi dara tax na ba bi ma ko waxee rek dafa am lool ci suma xel mas na bu sayru yi mas naa wax ne inna al kabaira fi lgufraani kal lamami bàkkaar yu mag yi su ko yàlla baalee su la ko yàlla jégalee dafay mujj mel ni bàkkaar bu ndaw bàyyi ne déet suñ la xasee baal kay bàkkaar bu ndaw bu mag nekkatu fa bàkkaar day mujj dem rek su ma nekkoon place dama naan innal kabaira fil gufraani kal adami buñ la xasee jéggal bàkkaar bu jëtu fi nekk danga koy léeg-léeg bàyyi gàgganti ko waaye wàññiwul ci xiimaam dara nañ góorgóorlu góor ak jigéen yàlla ñun yàlla may dégg ak topp insha allah foofu laa yemale jotaay bi salaamaaleykum wa rahmatullah foofu laa yemale sama kàddu jotaay bi moom mu ngi seen loxo salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah